bu jëlee ko ca place ba mu ko dugal loolu lépp ci sàcc lay dugg sàcc ay oto ay welo ay moto ca garage bañ ko denc wala parking bañ koy gaare yooyu yëpp tamit ci sàcc lay dugg sàcc jumtukaayu euh, ku yàlla moom moo xam muy càngaayam wala yu ko nuru yooyu yëpp ci sàcc lay dugg sàcc euh, carte bancaire ci sàcc lay dugg ndax jëmmi carte bi dañ koy jàppe xërs dañ koy jàppe dencukaay moo tax programme mu jàmbur ay logiciel yoo xam ne nit da koo def wala ab programme wala scénario boo xam ne nit da koo def man cee wut alal nga ñëw jël ko def ay pexe ba àgg ca di ko jëfandikoo loolu lépp ci sàcc lay dugg mën nañoo sàcc loo xam ne ñëpp ko bokk sàcc loo xam ne ñëpp ko bokk ab société ñoo ko bokk wala adduna bi ñoo ko bokk loolu mën naa amee ci ay anam jékki-jékki jël lu ñëpp bokk wala nga jël ca la ñëpp bokk jaay ko wala nga féetewoo ko loolu ci xeetu sàcc la yi dugg bu fekkee amoo ci ndigal euh, jël alalu nit wala aw askan wala mbooloo di ko dépenser ci ay projet yoo xam ne njëg ga dafa cher lool ñu dugal ci ay marché ak i lobby ba noppi du amal ñi ngi koy defal njariñ yooyu yëpp day duggaat tamit ci sàcc mën naa am ci alali mbooloo yi lu mel ni fédération yi association yi daayira yi ak yeneen ak yeneen Euh, lépp loo xam ne dañ koo jël rek ci kees gi te amuñ ci ndigalul mbooloo mi day daal di dugg ci anamuk sàcc euh, lii nguur def ci li nguur di def ci ay dëkk ak i ay gox lu mel ne ay courant ak i ndox ku fexe ba àgg ca di ko utilise te jaarewoo ko ci yoon moom it fuqaha yi dañ ko jàppe sàcc sàcc it mën na caa bokk sàcc kayiti jàmbur sàcc loi fexe bay euh, trafiqué kayiti jàmm di ci tukki wala euh, di ko dawalee oto wala yu mel noonu yooyu yëpp ci sàcc lay dugg kon ngeen gis ne ay anam yu bari la mën naa am sax ba ci ci wàllu xam-xam ak lu nit fente gis ngeen lu baree bari nit jékki-jékki jël yëfi jàmbur taalifu jàmbur dem mool ko gis ngeen lu baree bari nit jël turu société di ko utiliser wala yu mel noonu yooyu yëpp ci sàcc lay dugg atte yi ci aju nag dañu wax ni képp ku sàcc am nga ñaari àq yu ci aju benn bi mooy àq yàlla àq yàlla ji mooy ku sàcc dañu na dañoo war a dagg say cër cër yi mooy loxo yi ak tànk yi mësa bi nag wuute nañ ci dañ koy dagge waaye ala kulli xaal dañ ko war a dagge bu fekkee sàcc am na te chart yi bat charte yi ba ci ëpp solo mooy mu mat rubu dinaar muy loo xam ne mat na vingt-six mille ndax rubu dinaar mooy tolloog cen gi lu mat vingt-six mille loo xam ne tey bu ñu ko xayma woon mu mat mille àq ja ca yàlla moom mooy dañoo war a dagg say cër dagg ga nag nekkul ne boo ko defee da ngaa wër ta nga sàcc moom déedéet waaye dagg yi mooy rek dañ koo war a dagg ndax wàññi la yow mi ko doon def ba doo ko defati waaye wàññi sa moroom ba bu ëllëgee moom it du ko defati euh, xam ngeen ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñuy wax Maxzumiya sàccoon na euh, nekkoon kenn ci sangi Xuraysin ni yonente bi digle ne nañ dagg loxoom jigéen la woon yonente bi digle ne nañ dagg loxoom gars yi jaaxle ci lool naan ay waay ku koy tin ku koy ñaanal intervention ba yonente bi du wéyal àtte bi ci kawam ñu ne loolu de kenn rek moo ko fi may mooy ku ñu wax Zayd xaari Haarisa Zayd dem ci yonente bi daan ne ko xanaa doo ko baal yonente bi ne ko yow lu yàlla digle ngay ñëw di ñaan intervention atashfau fi xaddin min xududillah daan ne ko yéen de li alagoon xeet ji leen fi jiitu weesuwut lii mooy ku am daraja bu musaan sàcc dañ koy dañu bàyyi mu jàll duñ ko def dara waaye ku suufee daraja bu musaan sàcc dañuy dagg loxoom daan ne maa ngi waat ne Fatima sax sama doom ji bu damay dagg loxoom damay wax li damay def li yàlla digle ci kawam sëriñ bi euh, sëriñ bi moom it bañoon ko lool sëriñ Mouhamadou Bachir mi ngi nettali ci minan ne sëriñ bi ku ko mosaan tooñ lu jëm ci boppam daf koy baal daw ci fayantu amul lenn lu mos a fayantool boppam ba mu des nag ku daan jël alalam anamu sàcc wala mu daan tooñ nit di jël alalam nee na loolu moom ku ko mosaan def da daan dal ci sa kaw léeg mën naa dal ci sa kaw ba noppi jël alal ji mayaat la ko léeg mën na la ko bañ a mayaat daan ne ku musaan sàcc ba ñëw ci kër gi it daf daan dal ci sa kaw daf la daan yar ndax loolu daw ko kafe ndax daf daan jàpp ne ku def lu mel noonu dangaa xotti war may suñu borom ñaareelu anam gi bi sëñ Tuubaa waxee kas sariqati dane wal xas bi ak këf dañuy wax ne këf bu ñu ko waxee ci fiq mooy rek bépp lépp loo jël bépp lépp loo jëlal nit teg ko ci sañ-sañ ak doole dañ ko tudde xas bi am na nag ay anam yu bari mën naa nekk lu aju ci wàllu suuf jël suufu si jàmbur ci amoo ci ndigal teg ko ci sañ-sañ ak ku ko mën a def moo xam nit a ko def moroomu nitam wala nguur moo ko def nit wala nit a ko def nguur yonent bi sallallahu waxoon na ne ku jël dara ci suufu si jàmbur te tegoo ko ci dëgg ëllëg yowmal qiyaam danañ la ko defal ak ndoom ma mu wër la ba mu mat juróom-ñaari suuf ba mu mat juróom-ñaari yoon jël alali jigéen lu mu war a am ci miraas nga jël ko tëdd ci sañ teg ko ci sañ-sañ loolu ci këf lay dugg am na lu ñu tuddee xasbul wadaif muy lu xew léegi loolu it dañuy wax ne mbécce lislaam daf koo bàyyi xel daf ne képp ku am xam-xam bi man-man bi ak xerañte gi sañ nga fu ñu wootee ne dañoo bëgg posé candidat te bu boobaa boo fa taseeg ñoo xam ne yaa leen ëpp xam-xam yow la lislaam di jox priorité léegi nag képp ku ñëw suufu la jël poste boobu ci yow ngir xam ne alal mën na caa génn loolu lañ ko du dee xas bu loolu la ñuy wax xasbul wadaif am na beneen xeetu xas bu bu am ñu koy wax xasbul wajaaha léeg nit wala ay nit jël nit jël nit teg ko ci seen kanam di dellu ci moom di diisoo ak moom wala ñu koy laaj ci seen wàllu diine wala yu mel noonu léeg-léeg ñu musal ko ca dara loola ku ko suufu ba jël ko te xam-xam ba matéwu ko xereñte ga matéwu ko man man man ba matéwu ko dañuy jàpp ne tamit da ngaa këf këf na ku ko def ci lislaam moom moom it comme li ñu waxoon ci sàcc rek ñaari àq mooy war ci yow benn àq bi mooy àq yàlla te boobaa duñu wax ne dañuy dagg sa benn cër waaye dañu lay bàyyi ci loxo yi kii àtte mu xool lu jaadu ci yow bu dee dañ laa war a caw bu dee dañu laa war a tëj bu dee dañ laa war def la neen ak la neen ñaareel bi mooy ñaareel bi mook sàcc ñoo ci bokk ku sàcc alali jàmbur wala nga këf ko danga ko war a delloo borom bu fekkente ne jëfandikoo koo ko bu fekkee xas nga ko jëfandikoo nag euh, xayma ja ngay delloo borom dañu xool bu doon téléphone nga këfoon wala moom nga sàccoon ñu xool ñaat la war a jar bu fekkente ne dafa réer wala danga ko sànk nga jël la mu war a jar nga jox ko ko ñu bàyyi xel ne nag ku sàcc la ñuy wax ak ku këf waaye euh, képp koo xam ne ku sàccee daf laa may wala nit këf alali jàmbur ñëw may la wala mu bàyyi ko fi ba nga donn ko wala mu jaay la ko te nga xam ne da koo këfoon wala da koo sàccoon yaa ngi moom bokk àtte yaa ngi moom yéen a bokk àtte loolu la fuqaha wax ñetteelu anam gi sëñ bi dafa waxoon wasu aali bi laa xaajatin shadida laaj goo xam ne euh, soxla su far te jàmp wëralu ko lislaam xam ngeen ne liggéey la jox muy liggéey la def muy euh, wutukaayu alal bi bi munta ñàkk liggéey waaye comme xam na ne nit ñi bokku njëmuñ suñu borom mooy maye te mayewul lépp mayewu li muy may tamit mayu ko ñëpp am na ñoo xam ne da leen ni bindee duñ mën a liggéey da leen li ñu leen di bindee seenu bind da cay def loo xam ne duñ mën a liggéey am ñoo xam ne da leen ni bind ñu mat mën a liggéey waaye mën nañu dem ba mu yàgg ñoo am accident boo xam ne day tax duñ mën a liggéey ci ñii lay wax ne kuy liggéey dee leen bàyyi xel dee leen bàyyi xel buñ demee ba laaj sës fa it bu ñu laajee nang leen jox bu laajee nang leen jox ñooñu nag yonente bi salaa sallam dañoo jàngaloon ñooy ñan yonente bi waxoon na ne tàllal sa loxo ak di sàkku ndimbal kenn sañu ko ku dul ñett ñii koo xam ne dafa ay cëram dafa matut ba noppi mu ñàkk lool amul menn pexe kooku sañ naa laaj ku amee bor boru ba teew mu war koo fay te amul kenn ku ko fayal kook sañ naa laaj ku yor diya ku rey nit te tey ko diya ja dañ naan ko da ko war a fay mook ay mbokkam bu fekkee mook ay mbokkam mënuñ koo fay wala amuti mbokk amul menn pexe it kooku sañ naa laaj yonente bi ne ku dul ñett ñi sañoo laaj ku dul ñett ñii sañoo laaj te ñett ñii ku ciy laaj it soxla sa bu matee rek suñoo yokk suñoo yokk ca la ngay laaj dara wax ne ku laaj ngir gën a dolli sa alal ëllëg laaj gi nga doon laaj day mujj nekk lu ñaaw loo xam ne day tàmpewu sa kanam day mujj nekk xal wu tàng it woo xam ne buñ la dugalee ca jahannam wala yaas billah moom ngay lekk di ko dunde daan ne nag leeral naa kon léegi wax naa leen danger bi laaj am kum neex nga def kum neex nga bàyyi waaye dafay mel ne bu ñu xool suñu jamono ji danañ gis ne ñuy laaj bari nañ te ñuy laaj te waruñoo laaj bari na gis nañ ñu baree bari di laaj te mën a liggéey am doole gis nañ kuy laaj te amul soxla laaj ngir dajale alal rek nit a ngi laaj te soxla sa ko waral du soxla su tax ñuy wax lu mel ni laaj ngir di ko natte wala di ko joxe addiye wala yu mel noonu nit a ngi laaj koo xam ne moo ko tane nit nit a ngi laaj kum tane loolu it lislaam daf koy tere nitam ji laajit xëy na am na soxla waaye soxla sa tërut di laaj ngir di ko dugal ci li ñu tuddee ay xaajiyaat ak kamaandiyaat rek di laaj ngir noose wala di ko jëndee ay téléphone wala yu mel noonu loolu taxut ñu na laaj nit a ngi laaj it ngir di ko moyee yëpp am na sëriñ bi daf doon wax ne adduna boo koy xool génnul ñett ñii koo xam ne la ko yàlla jox ëpp nay soxlaam ak koo xam ne Euh, li ko yàlla jox euh, ay soxlaa ma ko ëpp ak koo xam ne nag li ko yàlla la jox ak i soxlaam ñoo tolloo daan ki nga xam ne am na lu ëpp ay soxlaam kooku suñu borom daf koo wax ne wa anfiqu fi sabilillah del dimbalee ki nga xam ne lim yor ak lim soxla ñoo tolloo kooku suñ boroom da ko waxoon ne ko yamale ko ci sa bopp wala tulqu bi aydikum ila ko daan ne ki nga xam ne nag yorut dara kooku li ñu tuddee ab faqiir daan ne kooku bu munta bu munta ñàkk laaj na laaj suñu boroom na laaj yàlla daan ne kum ñëwit laaj la kum ñëw tàllal la loxo loo ko dimbalee am nga ca ngërëmul suñu borom kon loolu liñ ci jàngate rek mooy nit balay joxe day fekk day fekk ay soxlaam mat liñ naan bala nga ne naam ne fa ku ku ko xas tàllal loxo it ak ku man di doon la gën mooy bu amee lum ko dimbalee mu dimbalee ko sëñ bi dafa doon wax ne wala taruddu saailan in kaana indakum shay bu ngeen yoree dara ku leen laaj na ngeen ko jox te yàlla tax doon wax ne xam-xam bu am njariñ kenn waru cee tàyyi bu ci tàyyi ni ki ne nga joxe te yàlla tax ñu koy jox ak ki koy joxe ñoom ñaar ñëpp kenn waru cee tàyyi waxoon ne ku ñëw di sàkku ci yow ndimbal na ko dimbalee boo ko mënut nga yabal ko ci ku ko mën a dimbalee kon mën nañoo tënk loolu ci anamuk ñetteel gi anamuk ñeenteel gi mooy lekk ci diine moom it euh, dañ ci fàggoo alal ju araam lekk ci diine ci ni ko borom xam-xam yi xam ne ci lu gàtt mooy lépp loo xam ne nit ki daf ko jël ci turu diine ak lu mu ko mën a jëlee nag moo xam ne daf koy jël ci turu dafa sóobu ci yoonu yàlla wala dafa ragal yàlla te fekk melut noona wala muy koo xam ne dafay wan askan wu baax la bokk te fekk demewut wala muy xam ne dafa ñëw ci post boo xam ne xam-xam moo ko war a lal xam-xam aku xerañte lu mel ne imaam nekk imaam wala def ay témoignage shahada foofu ku fa taxaw ne mën naa ko te fekk mënoo ko ñu la fa jox rek xamal ne dañ koo lekk ci diine ak koo xam ne day def fatwa dañ koy laaj muy tontu wala muy àtte nit ñi te fekk xam-xamam matewu ko kon bu ñu ko doon tënk dañuy wax ne képp kuy exploité diine ngir am ay financement wala alal ju jóge feneen dañuy jàpp ne da ngay lekk ci diine képp kuy jëfandikoo turu kilifa wala aw santam wala jumtukaayam ngir àgg ci li ci poosi nit ñi dañuy jàpp ne da lekk ci diine képp kuy woote ak wilaaya ngir xëcc nit ñi sa bopp te fekk demeewul noonu dañuy jàpp ne da ngaa ci diine ak képp koo xam ne day def fatwa ñu koy laaj muy tontu te man-man ba àggu ca xam-xam ba àggu ca compétence ba àggu ca dañuy jàpp ne dafay nekk ci diine bu ñu delloo ci masaalik danañ gis ay màndarga yoo xam ne dafa ñuy wan kii lekk ci diine nu muy mel sëñ bi bi muy xas lenn ci gaay yi mu bokkaloon jamono te seen jukko baaxut daf caa boole ne am na ci ñoom ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi aje di jël alal yi julli ñi di ko jële ci bu ci ci buur yi fu fu ñu toll di aje fu ñu toll it di dem ci bunti buur yee ka ñëw bu doon tey nga ne di dem pale ak a ñëw di dem màkka buñ ñëwee jàpp ne am nañ ca tiyaaba ju bari fekk amuñ ca dara ndax alal ji ñu fa yóbbu alal ju araam la kon mën nañoo jàpp ne képp kuy jëflante ak nguur di ca lekk xaalis mu la koy jox ci turu diine dañu jàpp ne da ngay lekk ci diine am faneen fu mu doon wax de am na ñoo xam ne da gis fu ñu toll dañ kaalawu dañuy kaalawu muur seen bopp bépp di ñëw di ngir rek di toppandoo gaa yu baax yi ñi nga xam ne seen yitte doon toll lu may ngërëmul suñu borom fu ñu toll ña ngay wérdu waaye seen xol baa ngi tilim lool fu ñu toll ña ngay wane ne dañoo dëdd te fekk jubluwuñ ci lu may rëbbu alal si waxti naasil maali kon nga gis ne la nekkoon seen jubluwaay mooy dañuy jëfandikoo diine ngir sàkku ngir wut alal nee na am na ci ñoom ñoo xam ne dañ naan duma lekk mbay di wane ne bay baaxut ngir di toppandoo ñuy jihaat ci yoonu yàlla te yàlla rek tax leen a jóg waaye nag bu ñu xiifoon wéet kenn lu fa boo leen joxee ab cox ñu lekk ko nee na am na ci ñoom ñoo xam ne dañ lànk ne dañ xool jigéen muur ñëpp di toppandoo gaa yu baax yi waaye nee na bu kenn gisut ñu defub safaan lekk ci diine nag sëñ bi daf ñoo jàngal ne dafa bokk ci ñaawi teggin ci diggante nit ki ak boroomam wa minhu aklu saxsi lil amwaali xiyaanatan bi diine dil jalaali wax ñu ne ku koy defit doo am mujj rafet nee na ñu gis nit ñi mooy ñi nga xam ne dañuy lekk ci diine seen biir yi ëllëg yowmal qiyaam day walu ba mel ba toll ni ay pale ak i kër ay jaan ak i jiit di ci dox di leen mbugal nee na day seen biir yi day xeeñ ba nga xam ne ngelaw li bu gillee képp ku nekkoon ci sawara daf lay sonal daf lay seene loolu wax na ko ci jëfar nafis juróomeel bi mooy lekk ci tiim alaklu bi shafaa mooy rek defal nit intervention ngir mu jot ci àqaam wara ngir mu fanqal boppam lor yoo xam ne dañ ko a teg lan mooy al aklu bi shafaa yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne ku til nit ku ko ñaanal intervention mu jox la ca dara xamal ne def nga riba bu rëy borom xam-xam dañuy wax ne intervention defal ko nit ngir mu jot ci àqaam wala ngir mu fànq loru bu war a yegsi ci moom warteef la warugal la mu julleeg woor a yam ku ko mënal defal sa morom da ko ko war a defal waaye dara war la caa fekk ku ko defal nit nag mu fay la ca dara dañuy yaakaar ne def nga bàkkaar bu mag te la jafa it moomoo ko bu ko neexee mën na koo jëlaat am na beneen anam bu am bu wax hadaayal ummaal boobu ni mu demee mooy koo xam ne dafay liggéeyee ci état wala mu am poste bu mu yor ñu ko cay fay kooka lépp loo ko jox ngir poste ba mu yor tax nga jox ko ko moom it dañuy jàpp ne fàggu teef lu araam la yonent bi sallallahu alayhi ci ay jamonoom dafa yónni woon ku ñu wax bi Lutbiya mu doon dajale ji asaka yi bi ñëwee ber ñaari alal daan ne ko lii mooy asaka ji lii nag moom mën lañ ko jox yonent bi daal cee tàng jër daal di jóg daal di xutba daan ne yéen daal nii rek ngeen di def naka lañ leen di mën a yónnee ngeen di dem bi ñëw naan lii yéene ko moom lii mën lañ ko jox ku ci man ci yéen kay nga dem toog kër yaayam wala kër baayam ba xam danañ ko jox dara kon loolu li ñu wane rek mooy borom xam-xam yi dañ cee ballaloo ne dañ cee dégg ne nit ci pos ñu jox ko ca dara day natt boppam est bu toogoon seen kër bu toogoon kër yaayam ak kër baayam danañ ko ko jox wala ñu ko ko jox bu nattee ba xam ne bu toogoon kër yaayam ak kër baayam luñ ko ko jox luñ ko jox dëgganul ci moom waaye am na joo xam ne nag mën nañ ko ko jox lu mel ne yenn neexal yi nga xam ne dañ koy jox nit ñi ngir ak xaretoo gu yàgg waral ko wala yu mel noonu kon ci tënk rek euh, sëriñ bi waxoon na ne wa aklu maali naasi duna tiibi nafsin yu addi nafsa li tantiibi kalaakli bi diine wa bi shafaa wa hakada taqiru fi'li taa damay tënk rek riba lekk riba ba tey ci anam yi ñu fàggoo alal ju la waxtu yi daf ñuy xoj duñ fi nekk di ko xam ne di indi ay tegtal waaye dañuy joxe misaal bokk na ci misaal yi intérêt yii di jóge ci banque bi riba la ndax alal ak alal saa yi ñu jàkkaarloo rek ndool leen am ca riba la riba dafa xaraam suñ borom tëkkoo ci ci alxuraan riba muy néew muy bari dafa xaraam intérêt yii ñuy teg ci leb gi ñuy leb ci banque yi dafa xaram ñëpp ci dëppoo waaye nag ki koy leb mooy kan lan moo tax mu koy leb ñu baree bari dañ koy layee daruura mooy dañoo dem ba ñàkk pexe daruura na ci charia dañ koo tënk ci ay charte wax ne charte yooyu saa yu saa yu la tere woon sañ nga ko ab daruuraat tubiixul mahduraat léegi kii jël intérêt day xool ndax charte yi daje na ci moom wala dajewul ci moom dañuy wax ne it la nga jël te soxla sa mënta ñàkk waraloon ko saa yu soxla sa matee rek si ñun caa teg dara ad daruratu tuqaddaru bi qadriha léegi nag mu des nit mu des diggante nit ki ak boromam ak diggante nit ki kami laaj moo koy tontu lekk riba mën naa amee ci weccee di wecc nit ki muy manqué loolu ko def lekk nga riba mën naa am it ci suñ xew-xew yii jëflante yenn jëflante yi ñu ciy faral di jëflante lu mel ne li ñu tuddee ndawtal lu lu mel ne li ñuy tuddee ab yàpp li ñuy tuddee ndayeele li ñuy tuddee am njaam saa yu ñu ko jëlee di ko bind di ko bind jàppe ko bor boo xam ne ku la ko lebal dañ ko war a fay ba noppi dollil ko ca rek riba ko jàppee bor jàpp ne ku ko war a fay dolli ko ca rek riba la bu ñu ko jàppee bor sax day amaat yeneen yeneen problème yu muy indi mooy ndawtal yi ak yab yeeg njaal yi bu ñu ko jàppee bor fi ne ku faatu jigéen ju faatu dañoo war a dem xool sab kaye xool ñi nga yoreel ñëpp ñu dem fay leen bala ñoo miraas moo tax loolu lu doy waar la pour ñu génn ci loolu lépp nag dañ koy dañ ko war a jàppe mbirum solidarité bañ koo nekk di bind nag di toppanteeg di mere ku la tegalut ak ku la tegal natt yi natt di ci bokk li ñuy tudde ay teg képp koo xam ne tegal nañ la ba mat nga lànk bañ a tegal nit ñi wala nga tegal nit ñi ba mat ñu lànk bañ laa tegal bu duggul ci riba it dana dugg ci ak lu amwaali naas bil naa muy lekk alal nit lekk alal yi jirim te tegoo ko fenn ci anam yi fàgguteef yu araam la ci suñu jamono ji nag mi ngi feeñ ci anam yu bari lekk miiraas lekkum miiraas am na ñaari anam wala ñett léeg nga gis nit di liggéey nit jóge fi jiitu ji kam doon liggéeyal lànk tëdd ca alal ja loolu bu fekkente ne ka faatu ay jirim la fi bàyyi dañuy jàpp ne lekk alali jirim la leneen gis koo xam ne day business ak nit du bind la ñuy séq ba yàlla moom ko kooku tëdd ca lépp ndax gis nañ lu bare bari nit faatu ñu xam ne amoon na alal waaye léeg-léeg gis nit faatu ñu jàpp ne amoon na alal waaye dañuy jékki-jékki rek xam ne yorutoon lu bari ni ñuy def ni ñuy nga xam ne dañ koy def ay kër karaan ñenn ñi jël alal ji tëdd ci bañ koo fay te te man koo fay bañ koo fay te fekk ñu man koo fay loolu day dugg ci alal lekk alali jirim nit ñu dénk la ab jirim nga war koo toppatoo lekk alal ji tëdd ca lànk bañ koo fay loolu it day dugg ci lekk alali jirim am na it ñoo xam ne sañ-sañ ak doole ci lañ koy jaar ba lekk alali jirim waaye bi ci gën a yéeme te ñu bari duñ ko bàyyi xel moo nit jógee fii nga ne damaa mayoon nangam ci alalam loolu amut ci fiq rawatina ci fiqu Maalik te bari na luñ koy def nit dafiy jógee kenn ku ñëw àppoo ne lii de na ko mayoon ci mazhab bi dañuy wax ne nit bu xasee maye bu mayee te lam la may jëloo ko si saisir ko wala mu feebar feebar boo xam ne mën na caa faatu wala mu faatu xamal ne la la mayoon ñàkk nga ko loolu la wax ci masab imam malik abu bakar bi muy waaj a faatu dafa woo sayidnatu aïcha ba mu ñëw mu ne ko ku lay yéene lu baax damaa ci jiitu ku lay yéene nga am damaa ci jiitu am na nag lu ma la mayoon ca ca àll ba ay tey jii boo ko jëloon boo ko jëloon tey yaa koy moom waaye ginnaaw dem naa bay sukuraat nii xamal ne yaa ñi ko séq ñi ma war a doon yéen a koy séq law kunti jatattiihi waxtastiihi la kaana lak walakin al yawma maalu waaris Seydina Omar bi mu ñëwee fekk ñuy def loolu am ñoo xam dañuy may seen doom yi mu ne yéen daal nii rek ngeen di def dangeen ngeen di jël seen alal di ko may seeni doom bu doom ji njëkkee faatu nga ne mayewu ma dara yéen bu ngeen njëkkee faatu doom ñi gaaw di tippoo waaye ku fi mayeti dara sa doom jëlu ko ba keroog ba ba faatu fekk la ca xamal ne lam la lam la mayoon ñàkk nga ko kon loolu muy lu mat a bàyyi xel sëñ bi waxoon na ko ci Munawwirus Sudur euh, ribatun namimatun aklu riba xussat bi fammin mislu xamrin shuriba euh, wa aklu amwaalil yatiimi ak ixtikaar mooy lu nit ñu soxla rek nga denc ko lu nit loo xam ne dafa jëm ci ab dund nit ñu soxla ko période bi ñu ko soxlaa nga jënd ko denc ko ngir prix bi yéeg loolu koo ko defee xamal ne yaa ngi fàggu anam ci anam gu anam gu anam gu araam kenz mooy alal ji nga denc ci te génnoo ci àq yàlla ku koy def yaa ngi fàggu fàggu teef lu araam sëñ bi daf doon wax ne alal boo ko yoree bu ko téye danga koy bàyyi mu jàll ci ñi ko war a jot ñëpp gannaaw boo ci jëlee li nga soxla yàgg sa njaboot daan ne kii téye alal na xam ne du ci am lu may ak perte aku xañ laa tumsikul maala laa tumsikil maala bal anfiq bihi alfuqara min baadi ahlika taxrus kulla ridwaani inna alladi yumsiku al amwaala muxtakiran lam yantadir gayra taxsirin taxsirin wa xirmaani doon kañ borom alal yi nga xam ne dañ koy bokk ak nit ñi duñ ko denc duñ ko rënk wa man kaana daa maalin kathirin wa lam yakun moo en معينا لذي فقر فأعجب به غمرا ومن كان معوانا لذي الضعف والجوى ولم يك ذا عجب فأكرم به برا beneen anam beneen anam gi ñuy fàggoo fàggalu araam mooy tricher ak naxaate mooy li ngay jaay wala nga ciy yëngu nga ciy nëbbu loo xam ne ki ngay jëflanteel bu ko xamoon du ko jël ci gàttal loolu moo xam lu ñuy liggéey la moo xam li ngay jaay la moo xam lu ñuy defee marketing la booy jaay marchandise moo xam ne ba nga caa taf luy wane ne original la fekk na du original wala nga jël turu jàmbur di ca liggéey fekk demeewul noonu ngir rek nax nit ñi loolu lañ ko araamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëwoon ci nit fekk ko muy jaay mu jël loxo bi dugal ko ci ëmb bi génne ko loxo bi tooy yonent bi ne ko lii lan mu ne ko ah taw bi dee wàcc ci kawam yonent bi ne ko lu tee nga jël ñam wu tooy bi def ko ci kaw ba kuy jënd mën koo xa mën koo gis nii rek ngeen di def waaye kuy nax nit ñi xamal ni bokkoo ci ñun mooy jukkooy lislaam jukkoo woo jukkooy lislaam triche nag jamono ji bari na dangay gis koo xam ne dalay taggal marchandise di la ca wax loo xam ne amu ca loolu triche la wala koo xam ne dalay xasal njaayeen jàmbur ngir bëgg koo jënd loolu triche la koo xam ne qualité bi mu lay wan ne lii nii la mel ak nii la demee dëriwut noonu loolu triche la di natta nit ñi wala di leen peeseel di ko wàññi wala di am loo ci jël loolu ci triche lay dugg nit ñëw di jënd wala muy jëflanteeg yow nga nëbb ko prix bi jaayee ko lu gën a cher loolu ci triche lay dugg moo tax ñu naan képp ku bëgg a yëgle sa njaay wala nga bëgg a def publicité wala marketing balaa di dagan ci lislaam ñetti sart yi def ci daje mooy li ngay jaaye bu mu nekk lu araam na nekk it lan cay wax it na dëppoog la am ba noppi it bu ko def ngir lor kenn Sëriñ Tuubaa daf ñoo waxoon ne wa qaabilil ixsaana bil ixsaana bil ixsaani yaa man yuridul fawza bil xisaani daan na yàlla moo ne ku la defal lu baax mu ne koo fayee lu may defal ko lu baax hal jasaawul ixsaan illa al ixsaan sëñ bi teg ci ne bokk na ci mbañum rus ak i teggin ak jukko yu baax mooy ku la tooñ nga baal ko ku la defal lu baax nga defal ko lu baax ku la defal lu baax nga defal ko lu baax sëñ bi ci ne bokk nañ ci bokk na ci jëflantee lu baax assalaamatu min al xish bàyyee naxe ak di def di triche daane ndax yonent bi moo ne man xashana fa laysa minna sëñ bi teg ci ne wal xishu dëddu nasiixa triche ak di naxe mooy safaanub laabire anam gi ñu ciy mujje mooy fàggu alal di ko jaare ci xas nit ñi ak di xaw seen sutura ak di tusaare aw ñawteef ak i ayib loolu bari na loolu léegi sëñ bi daf doon wax ne bokk na ci melokaanu julli dëgg dëgg dëgg mooy lu mu gis ci mbokkum jullitam day fas yéene ci xolam mu bañ a feeña ci moom kuy xaw wi sutura yow waroo cee bokk sëñ bi waxoon na ne àdduna ñett ñi rek ñoo fi nekk ku yàlla teral ku yàlla suturaal ak ku nekk ci seen diggante ñoom ñaar ne ki yàlla teral dee ko teral ki yàlla suturaal dee ko suturaal ki yàlla suturaalu tëralu ko bàyyee ko nu ko yàlla def sëñ bi daane wax ne it kuñ xaw yi sa sutura wala ñu bëgg laa weer doyalal yàlla xam ne xam na li xew xam na it nam xewe wax ne waqtafu bi ma allahu tabaraka wa taala fiikum an ilmi gayrihi inda iradati almirai waljidal fa in tawajjaha ilaykum man yatlubu almiraa waljidal fa in kuntum ala alxaqi fala tujibu ku leen def dara chantage leen bu fekkente ne xam ngeen ne yéen ci dëgg bu ngeen ko tontu bu fekkee nekku leen ci dëgg ngeen bu ngeen tuubee suñu borom dana leen jéggal teg ca ne wa faalul xayra laallakum tuflixuun suñ borom waxoon na ne ñi bëgg siiwal aw ñeewteef mbugal mu metti mi ngi di xaar ci àdduna ak alaxira inna alladina yuxibuuna an tachia alfaxishatu fi alladina aamanu lahum adaabun alimun fi dunia wal axira wallahu yaalamu wa antum laa taxlamun ci am dafa jéggi dayoo ndax yëmut ci yow mi koy def rek ak ki nga koy def waaye dafay law ba àgg ci nit ñi nit ñi bu fekkoon ne lu bari ñu leen di ump mën nañoo bañ a def lu baree bari lu baree bari day garaaw ci seeni bët garaaw ci seeni nopp waaye bu fekkente ne dara umbatu leen lépp rek loo fi gis gisoon nañ lu ko raw démb day tax ñu ñeme day taxit it luñ doon dagal wala ñu koy moytu duñ ko moytu bu ñu xool nag suñu jumtukaayu xarale yi moo xam yi ñu gis wala yi dégg wala yi ñu dégg di ko gis danañ gis ne wàll gi dañ ko dañ ko dugal ci seen liggéey di ci commerce dëgg la lu bon lu ñaaw lu yëllut dañ ko war a dénoncer waaye ci kaw mu ne fàng ci kaw mu ne fàng ndax lu ne fàng kenn du ko jeex loolu la ñu sëñ jàng jàngaloon ci Jawharun Nafis ne booy weddi lu bon day fekk mu ne fàng waaye bu ko gëstu ji bu ko yërlu ji bu ko yëddu ji wajaa aydan chartu kawdil munkari fii zahirin min duuni tajsiisin buri ba bay ja jeex kon ci gàttal mën nañoo tënk loolu ci euh, anamu fàggu lu araam mu bari ay jeexit nag dama koy tudd rek duma jaar ci bëy yi ndax waxtu wi mel na ne mi ngi jate fàgg lu araam ku koy def day tax nga sori suñu borom suñ bi waxoon na ne alal ak jaamu yàlla lu mu bari bari bari mënut a jariñ nit ki bu fekkee mi ngi lekk lu waxoon na ne kuy yàlla euh, di ànd lu araam xamal ne li doo ko am waxoon na ne mu jëfandikoo rek mu mel ay jëfam noonu lay mel daan ne kon lekkal lu la soob waaye loola ngay jëf daane wax ne it kuy lekk lu araam am ak njub lekk lu day tax loo ñaan suñu borom du ko nangu moo tax bu ñu demee Masaalikul Jinaan sëñ bi ba muy lim teggi ni ñaan daf caa boole woon di wattu lu araam ci di ko lekk ci di ko naan ci di ko sol lekk lu araam day tax nit ki yu baax yi mën a def mu mën koo àggale ci yàlla lu mel ne taxaw guddi du ko man loolu sëñ bi wax na ko ci masaalikul jinaan am na yeneen jeexee yoo xam ne dafay feeñ ci wàllu social ak ci wàllu économie euh, ndax suñ borom lu mu tere rek moo xam xam nañ ko moo xam xamuñ ko dafa am yëlla ju tax mu tere ko dafa am yàlla ju tax mu tere ko kon bu ñu bëggee suñu dund neex ñu am texe ak àdduna ak àllaaxira il faut ñu jëfandikoo lu lew di bàyyi lu araam suñu borom waxoon na ne kuy jëf lu baax te gëm ko danaa la may dund gu neex man amila saalihan min dakarin aw unsaa wa huwa muminun fa la nuxyiyannahu xayaatan tayiba waxaat ne li ma rëdd nit ñi nii ku ci jaar da nga am texe waaye ku ko fi teggi da nga am ak texe di man faman ittaqa hudaaya fala yadil wala yashqa wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan dankan Sëriñ Tuubaa waxoon ne dund gu neex mi ngi tënku ci di def ay ndigal di bàyyi ay tere dund gu naqare mu ngi tàmbale ci di def ay tere di bàyyi ay ndigal dund gu digg doomu nga xam ne tey mu neex tay mu naqari mi ngi tegu ci eh, di jaxase ndigal léeg tere léeg-léeg nga def ay ndigal léeg-léeg nga def ay tere daal di wax ne eh, bu ñu bëggee am doole bëgg am kàttan bëgg am daraja dañu tënku ci ay ndigal waaye bu ñu bëggee yembare bëgg deltu ginnaaw Euh, bëgg a échec dañu nekk nañ nekk ci tere yi rek daan ne wa maa li zaalimiina min ansaar daan ne xanaa gisoo euh, suñ borom ba mu waxee malaayka yi ne leen usjudu li aadam jibril moo njëkkoon a moo tax moo ci ëpp kàttan ndax suñ borom nee na innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin inda dil arshi wax ci ay barab yu baree baree bare yu mel noonu muy loo xam ne dafay wane ne kon dund gu neex daal mu ngi tënku ci tënku ci ay ndigal te ndigal ya ya ca jiitu mooy di fàggu lu lew di watandiku lu araam bu ñu xooloon ci suñu jamono ji danañ gis ne lu baree bari fàggutif lu araam moo ñu ko indil ñaata nit ñoo nekk ci prison yi ñaata nit lañ njabar te booy xool la ko lal dëgg-dëgg léeg-léeg la ciy ëpp alal lay doon alal lay doon ñaata énergie lañ lañ lañ lañ perte ci ay ndaw ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci prison yi ñenn ñi tàqalikoo nañu seeni sago te la ko waral mooy luubal ak yëngu ci alal ci anam goo xam ne lislaam mayewu ko ñaata alal tey ñoo taxaw ñu sisir leen te tey bu ñu leen bàyyi woon mën nañoo liggéey lu baree bari te booy xool la ko waral la ci ëpp mooy la koy lay taaye euh, alal lay nekk confiance bi manqué léegi xel mu dal mi loolu lépp booy xool la koy waral euh, alal moo koy lal dem ba bennoo gi ñu amoon xeexoo bi xiiroo bi ak ñaayoo bi ci diggante famille yi ci diggante mbooloo yi ci diggante état yi ak ñañ yilif booy xool coow la lu ci baree bari la koy lal te euh, nekk ci islaale mooy fàgguteef lu fàgguteef lu araam fi ñuy mujj nag ci tënk mooy sëriñ bi ni mu ko waxee dunde ko noonu la ko dunde li ñu war a njëkk a xam mooy sëriñ tubaa moom yàlla rek moo ko taxoon a jóg looloo tax mu bokkoon ci góor yàlla yi nga xam ne seeni mbir yëpp dañ koo bàyyee woon dañ koo bàyyi woon ci loxoy suñ boroom dañ koo bàyyi woon ci loxoy suñu borom bu ñu koy xool ci diggantee nag fàggu ak maanu ak ni mu amee woon ak sàmm mën nañoo jël rek lenn nag ci li sëriñ Bachir wax ci minan sëriñ Bachir nee na am na bis sëriñ bi war ci benn daaba romb tooli jàmbur daaba ji daal di fil benn bant ci tool bi sëñ bi daal di taxaw ñi mu àndaloon taxaw ñu bàyyi ba borom daaba ji ñëw sëñ bi wax ak moom euh, borom daaba ji xamal ne ko garaawul amul solo mu soog a jàll nga xam ne alali jàmbur mosu koo jaral dara sëñ Basiiru di wax ne ba tey sëñ bi ak sàmmam jéggi woon na dayoo mista jariñoo loo xam ne day sikk sàkk ndax lew na wala lewut daan ni addiye yi daan ñëw ci moom lu mu daan bari bari bari daawu ci jëfandikoo lu may loo xam ne daa dem ba leer na ko ne lew na nee na addiye ju lew lu mu daf ko daan fonk lool waaye nag addiye ju bari bari daaw ko daaw ko bàyyi xel daan wax ne sëñ bi nee na euh, sëriñ bi daana faral di seeti niti àdduna yi waaye luñ ko mosaan ganale daw ci ñam ñuy mosaan wër niti àdduna yi it luñ ko mosaan jox daw ko ñam nee na loolu mi ngi ko tàmbalee ci bi mu nekkee ndaw ba ñu ngi ko mujj a gisee siñ sëñ Basiiru ñu nett ci ci minan ba tey di wax ne sëriñ bi daawul jariñoo lu may ci li daan jóge ci muritam yi nga xam ne daf leen a ci fàggu fàggu lu lew illa bi kas bi muridihil xaas sax daan wax ne ni mu sàmmewoon dafa jéggi dayoo sax waxuma la alali jàmbur waxuma la alali buur yi waxuma la ñu daan liggéey ci riba waaye sax ci biir ay taalibeem ci biir ay taalibeem nee na addi yi daa addi yi daan ñëw ci kër gi bari na lool fu ne la dara daan jóge unuuful mu allafa min al fiddati wal zahab xaalis la fa daan ñëw bari na lool ay sëfi gileem moo fa daan ñëw ak i gaal sëf ay dund yu baree bari daana am suuna daana am ceeb daana am nguru daana am suukar daana am tàndarma daana am desin nee na waaye ku ko mosaan jox dara dana dana daa daf ci daan bëgg lool kontaan ci lool waaye bari na loo xam ne bu mosaan ñëw ci kër gi da koy ber daw ko jëfandikoo daw ko jëfandikoo daw nangu ak njabootam jëfandikoo ko lépp daf ko daan dugalaat fi ko suñu borom sant nee na da ko daan gis ñu gis ko da ko daan gis ñu jox ko lu néew mu fonk ko lool téye ko waaye ñu jox ko lu bari du ci jëfandikoo dara waaye noonu ko sëriñ Basiir waxee noonu la ko sëriñ Tuubaa dëgg la ci ay baytam sëriñ bi suñ boroom lu rek la ma féetale yutimu lil muqiitu bil xalaali wa farra dul xadabi wa dalaali waxaat ne yow suñu boroom li ma bëgg lépp defal nga ma ko yaa lewal lépp lu may jëfandikoo yaa ko def mu lew lépp lu may jëfandikoo moo xam muy ak lekk moo xam muy ak naan tali jiraabi xillan atabta xillan atabta al akla ka sharaabi wax ne suñ boroom moo ma defal lu lew mallaka nil xalaala ka riqaabi maalikuha al mukrimu bin niqaabi daan sama alal sax suñu borom ma ko def mu lew dagan amul lenn lu lënt lu ci am man lakani albaaqi bila mubaahi maali abaaxahu bila ishtibaahi maali abaaxahu bila ishtibaahi daan ne suñ borom sa téere bii di alxuraan moom mooy sama moomeel sama alal it foo ko fekk day bokk ca alal ya gën a dagan kitaabuhu mulki wa maaliya ahab min al mubaaxaati wa innahu ahab daan nit ñi fu ñu toll lu ma amal njariñ rek te yàlla ci man lañ may andil yanxaadu li mimman lahu alxalaayiqu ilal jinaani naafiun bi walaayiqu daan na suñu borom yaa ma jox alxuraan jox ma lu lew jox ma xam-xam bu am njariñ kon dootuma ñàkkati dootuma réer sama ñàkk li koy faj mooy danga maa jox alal ju lew te teey waaye sama réer li koy faj mooy danga jox xam-xam bu doy yaquudu li karamuka alxalaala wal ilma la faqra wala dalaala nafayta euh, faqri wa dalali bi ulum wa bi xalaalin tayibin niaman alim ne maddaliyal mugni xalaalan tayiba walima marri wa duuri tayiba ne lu araam moom xumma fu mu jëm waaye ci man sabali gayri daati alxaraama baaqin li baaqin ilayya wajjahal maraama dëkkam bii wax na ne suñu borom moo ko may waaye it saxe lu lew ak topp yàlla والطنطني يا حافظي في طوبى فلتك فيها الشرور والخطوبة حطها عن الوباء والآفات دار عبادة بلا التفات farin mu wax ne xutha anil wabai wal afaati wal taj'alha watana taati buñ demee ci Fawzayni muy wax ne suñ borom man lay ñaan dëkk bii di Tuubaa nga def ko dëkkub leer dëkkub yërmande waaye wërsëg bu fi waaye indi na nekk alal ju moo xam ci bu muy naqari la wala bu muy neex fi l usri wal yusri wa risqaha jaal atyab al xalaali fi l usri wal yusri ala tawaali dafay mel ne nag nit ñi lu bëree bëri bu ñuy fàggoo lu araam boo leen laaj dañ naan jamono moo ko laaj waaye Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne bu naqaree ak bu neexee te xam ngeen li ñu jiital naqari soog cee teg neex am na ay jubluwaay daan ne ko maa ngi lay ñaan nga may ma xam-xam bu am njariñ ak daraja ju yëkkatiku waaye nag ànd ak xol bu sell maa ngi lay ñaan nga defal ma fi ñaan goo xam ne dañ koy nangu waaye nag ànd ak doylu doylu boobu ko mën a maye mooy bi nafsin tashbaaw bakkan buy suur kon dafay mel ne ci bay yooyu tënkal nañu ni Tuubaa war a doxee mooy leer dëkkub leer la war a doom dëkkub yërmande lu ñu fi war a yëngu it dafa war a nekk lu lew xam-xam bu am njariñ moo fi war di circuler fu ñu toll dëkk bi dañoo dañ ko war di dégg waaye it luñ fi ñaan dafa war a nangu ci kaw bu fekkente ne dañoo doylu am bakkan yoo xam ne dañuy suur sëñ bi sant na suñ boroom lool ndax nee na suñ boroom a ko may alal ju lew moo tax it ci lu leew la koy sante ak ci jaamu yàlla ashkuruhu bil xilli wal jiraani wal maa i wa dikri bila kufraani ashkuruhu bi xillihi lil janna dama koy sant jëfandikoo lu leew ba keroog àjjana daaral qaraari wal munaa wal minna yaquudu fi lxalaali li rabaaxa bila xisaabin euh, lil wara misbaaxa jëf naa fi loo xam ne it mën na maa nekk làmp mbindee fi kon kooku mooy Serigne Touba jàngale ko jëfe ko waaye yare ci Euh, kisab euh, biram koddu Jóob bi euh, sëriñ Mouhamed Lamine Jóob Dagana di nettali ci minan bi mu jógee ci Lat Joor ëndaale lu baree bari ci ay jaam te fekk alal ji yor ci gis-gisu sëñ bi waru koo yor daf ko waxoon mu delloo ko mu mu booyal leen bàyyi leen ñoom ñëpp ndax waruñu waru leen a jàpp ay jàmm wax nañ ne am na kilifa gu baax gu mosoon di siyaare si sëñ bi bi mu ñëwee ba ci yoon mu wàcc ci garab di jàpp bi mu jugaatee continuer aw yoonam ba egsi ci Serigne Touba bi mu ñëwee làmb poos yi xool xool ndiki dërëm bi mu ko waroon a siyaaree da ko fàtte fam doon jàppe mu dëpp mu dem di ko jëli ba mu fekk fa ñaari dërëm te benn dërëm la fa mu xool xool ban la ci moom mu dëppaat demaat ci sëriñ bi ne ko ah la la bëggoon a siyaare de dam moom laa dëppaatoon di ko xool waaye damaa dem fekk ko muy ñaar sëñ bi ne ko mucc nga mucc nga saytaane jéemal na la lu ne waaye mel na pexe mii rek la dese woon ci yow ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu ngeen gisee sañ ci dëkk yi amoon ba kilifa goo fi gis moom ay dëkk mag ñi baax euh, guñ baaxoon sell guñ selloon jege woon guñ jege woon suñu borom ba luñ mosaan ñaan mu am ci jamono yu njëkkee ba ci suñu jamono yi li ko waraloon mooy sax ci lu lew ak di bàyyi lu araam gis ngeen Tuubaa gi ni ko sëriñ bi ñaanee bëggoon mu jëmm moo tax jamono lu mu mosaan naqari naqari ba ak mbon mel na luy tasaaroo ñoom ñëpp dañ ko jéem a fànq Sëriñ Abdou li mu ci def kenn xamul nu mu toll Sëriñ Saalixu euh, li mu ci def ak ni mu ko àndewoon ak daayira Muxaddamatul Xidma ba ci Cheikh Mamadou Muntaxa ndigal yi mu ci euh, yeesalaat ci ñuy moytu lépp lu araam di taqoog lu lew dafay wan ne kon suñu kilifee jàmbaar lañ ku fàggu lu lew lu araam nag li ci lislaam wax mooy danga koy delloo seeni borom bu fekkente ne ñu ngi dund comme ni ñu ko sëñ bi jàng na ci joxoon na fis buñ dundut nga saraxel leen ko waaye sañoo koo moom sañoo cee def lenn kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi di jéggalu ci waxtu xat bi ak tomb bu yaatu bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Abdul Xaadir Buusa Alaaji Seex ñu ngi lay sant bu baax a baax ci bind bu am solo bii nga ñu fi andil tey am na solo lool ci ku ko teewlu settantal ko. ndax dafa laal dundug doomu aadama kenn ku ne ci ñun rek faaw ngay fàggu te ndegam fàggu nii la amee solo nit ki war naa xam-xam bu baax li muy fàggul mu doon rawatina nag ni nga ko jàngalee jëli ko ci njàngaleem Serigne Touba ni nga xamante ne noonu la ko jàngalee fii ci réew mi bind ko waaye yemu ci tam itam mu pratiqué ko jàngal ko ay ay ay ay ñi nga xam ne ñoo aju ci moom. bi nga bi nga tàmbale rek da ngaa junj lu am am solo ubbee waxtaan wi te mooy solo si nga xam ne xam-xam am na ko ci Cheikh Ahmadul Xadim radiallahu taala anhu wa nafaana barakaati li tax mu jox solo xam-xam jiital ko ci lépp lii bokk na nit faaw muy ut muy fàggu te la muy am na ca lu sunu boroom gërëmut am na ca lu mu gërëm kon war naa xam la ca sunu boroom gërëm ak lam ci gërëmut te bu bu ko xamul maanaam bu moytuwut dana dugg ca la nga xam ne suñu borom gërëmu ko te bu boobaa la ca suñu borom di dële wala mu diggee ko ca tëg ko ko ca faaw mu dal ko moo taxoon sëñ bi ci lépp lu mu mën di doon tey dañoo jëm ci buntu fàggu rek waaye ci lu mu mën di doon li tax mu bëgg nit ñi di ko xam balaa ñu cay jëm lii rek la ci jublu nga nga leeral lu bari maanaam tas ah, tasil ne maanaam loolu itam lu amoon la njëkk lislaam maanaam bu fekkee ne dañu jug di uti di di fàggu di liggéey masala ñuy def commerce wala liggéey bu man di doon war nañoo xam lan la ca lislaam santaane lan la ca digle lan la ca tere lan la ca maye lan la cay bañ ko ko ca def nga indi ci ay leeral yu bëree bëri ci sadru lislaam ba lislaam di door a tàmbale amoon na loolu nga wax ci Seydina Umar ibn Xataab nga daan wax ne du daawuñ nangu kuy jaay ci marché yi te xamoo li diina santaane ci wàllu njaay ak jëndante muy muy lu nga xamante ni tey jii warees na ko dellu delloo siwaat donte la jamono sax boo xool mi ngi ciy jéem a dab lislaam euh, mi ngi ciy jéem a toppandoon lislaam ci jamono yi waaye mel na ne nam war a taxawee taxaw wu ni muy lu mel ne loolu nga tudd ci ca jamono yooyu nga xam ne dadaa am li ñu wax almuxtasib nga xam ne mooy dem ci marché yi di xool ñiy jaay ndax ni ñi jaay koy dëppale ak ni ko lislaam jàngale wala déet ak li nga wax ci ne eh, sayidna imam malik radiallahu anhu daana def ñiy liggéey mu di leen woo di leen laaj ca liggéey ñuy liggéey ndax eh, la ca lislaam wax na xam nañ ko wala xamuñu ko boo fekkente ne xam nga ko ñu bàyyi la nga wëyal sab liggéey bu fekkente ne xamoo ko ñu ne la yow kat da ngaa war a tëj sa barabu liggéeykaay boobu dem sàkku ji xam-xam bi lislaam santaane ku ko xam ci loola ba nga xam ko door di door di ca dellu si loolu tey jii mooy li mooy ci langage bu jamono bi li ñuy wax inspecteur rek ay inspection inspection de travail yi yëpp di xew loolu la loolu la woon kon ñu xam ne yii jamono di indi yëpp lislaam jiitu na si jamono njëkkoon na ko jàngale ndax diine ak